asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen mënti nekk si àddina bi maa ngi leen di nuyu di leen ziara di leen balaax di ko sàkku ci kenn ku ne si yéen te la altine le 2 septembre 2024 waxtu wii may wax ak yéen 14 heures jot na fii ci ndakaaru ak li ko wër mbokk yi euh, dama fas yéene def vidéo bi. pour sénégalais surtout ceux nga savent dañuy dem euh, lu ñuy le sud du Sénégal Ziguin Chor en tout cas ñuy utiliser la transgambienne gambienne ko traverser ñeu Casamance li waral ma def vidéo bi c'est que yalla dafa def pour une fois personnellement dama euh, jëflante dama am problème avec les policiers gambiens ci yoon woowu. bi mu njëkkee dalee nag dama ne woon garaawut naa ko gérer comme ni ko sénégalais yëpp di ko gérer mooy lan mooy bëri na ñi nga xam ne dañuy nekk biir dakaar yor seen oto seen oto personnel di dama ko dikk fu leen neex gannaaw bi nu amee yëpp ñi nga xam ne ay papier la ci wàllum transport mooy carte grise mooy permis mooy assurance. léegi nag euh, territoire gambien bi dafa fekk ni depuis quelque temps ak pont bi nga xam ne. teg nañ ko muy euh, Sénégambie bi nit ñi foog nañ ñuy dina gën a yombal dem bi ak dikk bi mais bu fekkee ne autorité yi foog nañ ni loolu réglé na problème bi dafa am yeneen yoo nekk ñu ngi ci biir yoo xam ne chaque jour mu indi ay problème yu bare ci usager yi suñu devoir la ñu wax ko pour que ñeneen bañ a jaf euh, confronté à cette situation là il y a deux mois euh, wala un mois ak li top bu ma doon ñëw en tout cas ci li ñu wax euh, procès en appel affaire Boffa Bayotte bi may ñëw dama jog rek comme n'importe quel citoyen bi nga xam auto mi dafa nek en règle mo ñëw traverser li ñu wax euh, Kër Ayib dugg traverser premier pont bi ñuy wax ni ñu wax di Kër Ali mais fofu le problème yi doog commencer bu may yegsee deuxième point bi Wagi ji daf ma laaj assurance CEDEAO gannaaw bi ma amee assurance Sénégal ma ne ko non yoruma assurance CDAO dama doon traversé dem Casamance mu ne ñoom beneen territoire la donc il faut impérativement nga fay assurance CDAO. le défaut bi nga amulee carte CEDEAO assurance CEDEAO du moins nee na da ngay fay juróomi junni vingt mille francs CFA te ñoom nga koy jox policier gambien yi boo négocier négocier négocier ba metti gën kaa dee dinañ jël junni ci yow te loolu mu ngi commencé juste poste bi ni wax Kër Ali ça veut dire après kër ay kër aar moo ci topp chaque poste police ndegem ñoom chaque deux cent mètres wala cinq cent booy daw en tout cas cinq cent mètres c'est exagéré mais chaque cinq wala six kilomètres boo daw di nga tase ak contrôle police wala contrôle douane wala contrôle leneen donc poste bu nekk bu police dana la taxawal ñu ne nga nga won leen assurance CEDEAO boo ko amulee juróomi junni lañ lay wax nga fay ko noonu lan ma defee ba ci premier poste kër Ali kër Ali ci dellu parce que dafa am ben waju fa nek moy chef de brigade poste police ba moy jallu lu tuddu ba mu ba legi masuma gis nit ko xamne dina bëgg a nangu xaalis yu doomi ci arnaque ci escroquerie ci tapale, ba mu jaral ko mu jog sa bëgg xex ak yow wala accuser la dara bi ma njëkk dalé comme ni ma ko waxé il y a 1 mois et demi ci affaire bu ma dem ba fa bayot bi ma waxé ni awma loolu ñu négocier finalement ñu né man damay genn duma traverser territoire sen euh, territoire gambien transgambien bobu fekk yoruma assurance CEDEAO parce que sen loi loolu la wax naka noonu la len waxe ni dans ce cas suma fay nan ma jox reçu ni nak ka yor reçu bi nekou fi donc ça veut dire ka yor reçu bi mu ngi ci benen poste yo ya xam noy def soit nga jox len junni juróomi junni yiñ lay laaj wala soko ko len nga génn do traverser territoire Sénégal territoire gambien bobu wala nga négocier ak ñoom boo leen joxee junni ñu bay la nga jall jall na poste bobu poste ba ca top bu ne poste police bu ñu taxawal surtout am na boo wàccee pont wu Sénégambie bi am na beneen post bu ndaw encore bu ñu fa créé balaa nga yegg euh, Soma il faut nga joxe juróomi junni gën kaa dee nga jox leen junni boo amulee bu dul problème boobu leneen lañ leen laaj dem nañu ba laaj benn doomi Sénégal bu ma fa tasel ñu di ko laaj boîte à pharmacie lu tax amul boîte à pharmacie ci biir oto. Maintenant, c'est le premier voyage que j'ai fait. Il y a un mois et demi. En tout cas, comme je l'ai dit, minimum 4, 5, 6 à 8 postes de police. Vous savez, ils vont nous dire que si tu as le tampon qu'il faut viser à chaque poste, si tu as laissé 2000 ou si tu as laissé 2000, ce que tu sais, c'est l'arnaque, c'est la carte CDAO. Deuxième chose, loolu dama kay baxé bépp domi Sénégal wala muy étranger beneen boy traverser fofu pour dem Gambie na ngeen fexé premièrement seen auto même bu dee ci contrôle la bu len wàccee vitre bi ba mu jeex parce que police yooyu ma gis bëgg dërëm bobu ñu mu len di jaralu ne attan na len ñu duggal la dara sa auto ñu accuser la ci lo xamna am la ko parce que li ñi profité moy nga nek dans une position de faiblesse ñu la li ya ko def ñu gëm lo la ni yow ya nek fautif de sorte que ñu mëna la gën a ben bu ci mujj mu ngi may dal il y a quelques jours maa ngi ben ak benn chauffeur chauffeur bi dafa ñëw dafa am ñaari voie dafa am benn voie bi nga xamné auto yu joggé benen sens bi ñoo ci dem ñom dañ créer benn contournement bu bu ndaw ba da ngay wacc tali bi ñëw devant sen poste police bi jeune bi gisuko jeune bi hésité bëgg jël benen voie mané ko non non ba contournement bu ndaw bi ngay wacc le fait que hésité woon na pour bëgg engager wu ci lele ñu taxaw ko nee 25000 francs ngay fay oto bi dañ koy paak loolu mooy seen moo bi dañ koy paak parce que fi nga jaar amuloo droit nga jaar fa fi nga bëggoon a jaar amuloo droit waxul fi nga jaar fi nga bëggoon a jaar amuloo droit nga jaar fa ambulance moo fa am droit jaar xaw ma ak armée xaw ma ak lan bloqué jeune bi il a fallu encore après de longues négociations nga jox leen junni pour nu bàyyi la nga jàll boobu yëpp du warul ma def direct bi ak yéen li tax ma def direct bi ak yéen mooy képp ku jël yoon boobu boo nekkulee transporteur en commun parce que transporteur en commun yi ñoom d' accord nañu lu ñu leen teg nañ ko tegoo ñoom seen bopp ñooy jóg yëkkati jox xaalis ba tax na ñoom duñ leen retenir mais particulier bu fa jaar bu ne daan la fa jaarloo lu ko mooy nga jotee ak ñoom. li tax nag ma di leen wax bëri nañu ci senegal temps yi dañu créer CEDEAO carte bu bees boo xam ne biométrique la numérique la. dañ la koy yónnee ci sa téléphone boo amee assurance gannaaw boo amee assurance boo soxlaa assurance CEDEAO bii lañ lay jox maa ngi leen koy won pour sénégalais yëpp ñu gis ko xaw ma ndax yéen a koy gis mooy bii voilà bii lañ lay jox mooy assurance CEDEAO bu bees bu ñu nee CEDEAO dañuy wax les seize états de la communauté économique de l' Afrique de l'Ouest foo wone fu ne war nañ la mën a bàyyi nga romb lii mooy attestation carte CDAO bu bees logo CDAO mu ngi nii su ma leen di wax CEDEAO ñëpp xel dafay dem ni keroog Yaya Jammeh bu mu ne day jaay doole Gambien yi Macky Sall sous la bannière de la CEDEAO la mën a yónnee armée Sénégal ak ay soldats yu bari yu CEDEAO ñu ñëw jàppale Gambie dimbali leen mais Gambien yi ñoom nee nañu la CEDEAO décidé ci territoire seen yeneen territoire lay lay doxee mais du ci ñoom boole ci deuxièmement bi ma dellu siwaatee keroog rek xam naa matul sax une semaine kër Ali boobu pour Diallo wat ak le même chef de brigade Diallo boobu ma leen wax ba xamné la première fois dañ demone ba di ma buux parce que liñu bëggoon moy waji ji dafa ma yow dama la gis rek xamné man mënuma defante ak yow defante bi moy mënuma la corrompre mënuma la tiital mënuma la nax mënuma fexé ba jël yow ak doole motax il faut mu joggé fofu mu joggé commissariat ba lu ko moy daf may arrest arrest ngeen dégg ni daf may japp tëj ma ci kasso bi finalement ba coow li bare ñoom ñoo mujj reculer ginnaaw mais deuxièmement dama pare woon pour ñu arrestement parce que bi may dem dama ànd ak sama assurance CEDEAO jaaraat même place mooy assurance bi ma leen woon nii ñoom ñu ne bii Sénégal moo ko créé Sénégal lay dawee yeneen état CEDEAO lay dawee mais du daw ñoom seen Gambie policier gambien bés boo yegsee nga woon ko bii daf lay gën a jàpp dama leen koy won

nga négocier ak ñom négocier ak ñom bo leen baye junni ñu baye la nga dem mais négociation bobu xëcco bobu mën na tourner un jour sur un drame loolu lañ bëgg éviter lo sénégalais yi loolu lañ bëgg éviter lo doomu Afrique yi nga xam dañuy bëgg jël yoon boobu motax parce que tay jii nii assurance bu bees bi bi ma leen won bu cdao bi moy bi nga xam mom moom la assureur yi di joxe Sénégal bi ni mom la assureur yi di joxe Sénégal bëli ancien modèle bi arrêté nañu diko joxe

ba police sénégalaise moom mujjee ñëwoon envoyé commissaire bu Kër Ayib envoyé ay policiers bi seen commandant de brigade boobu ñu xamal ko ni lii mooy carte CEDEAO bu bees bi nga xam ne moo en cours au Sénégal mu ne yoonam nekku ci ñoom seen autorité gambienne reconnaître ñu ko tant que reconnaître ñu ko moom du bàyyi ñu jàll. beneen bi bu mu ñëwee bay wàcc na ngay xamee ni il y a énormément de choses yoo xam ne suma mbokk gambien war nañ ko def ay policier benn policier bu ndaw mu taxaw. yu ne buñ ma baye man ma jall fi mom day si mitunium musani mu jël samay këyit mu daw ak mom tal motoom yóbbu ko ba frontière ba il faut ma génn frontière ba ma dem ma jëli day assurance bi nga xamne ne en cours de validité au Sénégal pour que ñom ñu mëna baye parce que xamnañ ni mën nañu jël ci ku nekk mën nañ jël ci ku nekk juróomi junni mais bi yon Babacar Touré lank na ñaar deureum du ma ko jox nak sama ce que ça m'a coûté mais dama len di bayilo xel ci domi senegal yi nga xamne da ngeen bëgg jël yoon bobu ngeen xamne bu ngeen bëgge traverser Gambie dem len ngeen jëli bi comme ça bu ko defee mën nañ leen coller yeen motif parce que ñom ala kuli hal il faut ñu dund ala kuli hal foog nit ñi li len wëra a dundal dañ ko wëra jëlé ki ci euh, borom auto yi nga xamne dañuy joggé senegal di traverser donc ngeen bayilo lu xel ngeen outil ji assurance bi mbokk yi li moy alerte bi ak warning bi nga xamne ne na len ko defal su ma sañoon sax def ko ci français def ko ci anglais bu ko defee sunu mbokk yi nga xam ne ñu traversé foofu ñëpp ñu am information bi mais képp ko ko mën a traduire ci sa mbokk nga xamal leen ko ku bëgg a traversé Gambie na dem jëli ancien model boobu li ko mooy dinañ ko jël dinañ jël xaalis si moom ci leneen mais duñ ko arnaqué waat ci wàllum assurance li mooy lii mu bëggoon waxante ak yéen di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci kenn ku ne si yéen jërëjëf.